yaa ibaadi yéen sama jaam yi law an na awwalakum doonte nag aji jëkk ci yéen wa aaxirakum ak aji mujj ci yéen wa insakum ak seen nit wa jinnakum ak seen jinne kaanu nekkoon nañu xalaa xal bi rajulin ci gën jaa saay saayi xolub waay waahid njur jenn min kum ci yéen maa naqas du wàññi daalika loolee min mulki ci sama ngóor gi seen dara yaa ibaadi yéen sama jaam yi law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum xaamoo taxawoon nañu fii sa'irin ci ab pàkk waahid bu di benn fa sa'aloo nii dañu laaj ma fa a'taytu ma jox fa a'taytu képp nit masalataxoo la mu laaj mi ak laajam maa naqasa du wàññi daalika loolee mim maa ci li nga xam ne hindi nekk na fi man illaa kama yanqusu ndare naka lay wàññee al mixyatu puso ba isaa udxilan dem dugaleef na ko albaxra ci géej ga sama jaam ñi innama hiya naka yooyu yëpp daal amalukum seeni jëfa ux siiha danaa ko lim lakum ñeel leen summa uwax fiikum topp naa leen matalal iyaaha ñoom maanaam fay leen ko ba mat faman wajare ku fekk xayran aw yiw fal yaxmat na doole sant allah yàlla waman wajada ku fekk xayru daalika lu loolu fala yàllu mën bu mu yedd illaa nafsahu ndari boppam xaalu saidum said nee kaana nekkoon na abu idris abu idris isa xaddasa bu nettalee bi haatan xadis ci bile sukk ala rukku ci ñaari bati woom ala rawaahu muslim wa raway naa nett leenanu xanil imaami ahmad ibni anbal rahimahullah xaala ne laysa li ahli shaami de di ñeel ñooñ saam xadiisun hadis ashrafu bu gën a tedd min haasal hadis ci biir hadis hadis boobu daa xaw a gudd ci ëmbul yaatoo yaatoo ku ñuy wax Saïd ibn Abdul Asis moo jële ci ku ñuy wax Rabiha ibn Yazid ci Abu Idris al-Xawlaani Abu Idris jële ci Abu nga xam ne moom mooy saxaaba bi jële ci yonante bi bii nag hadisun qudsiyun la ak addis qudsi mooy boo xam ne yonante bi day wax di nettali yàlla mel na yàllaay wax yonante bi di ko nettali bu bokkut ak boobu nag mooy xadiisun nabawiyun waaye bu mel nii moom xam ne yàllaay wax yonante bi nettali mooy addis qudsi dafa tàmbalee ci yéen sama jaam ñi dama araamal tooñ ci saa bopp duma tooñ mukk yéen tam nag dama araamal ci yéen tooñ fexe leen ba bu leen tooñante bu kenn tooñ sa moroom na kenn ku ne maandu bañ a tooñ moroom ma yéen sama jaam yi na ngeen xam ne ku ma gindiwut mu sànku kon nag doo ñaan ma gindi leen ndax ma gindi leen ndax man rek maa mën a gindee ku ma gindiwul nga sànku yéen sama jaam ñi ngeen xam ne kat ma joxut mu lekk du lekk te kon mu xiif kon dee leen sàkku ma jox leen lekk ma jox leen yéen sama jaam ñu xam leen ni kat man maay woddee ku ma woddu rek nga rafle kon nag day leen sàkku ci man ma woddu leen ma daal leen di woddu yéen sama jaam ñi xam naa ne ay mooykat ngeen bu dégg bëccëg da di mooy rek waaye man nag ab jégalikat laa doo leen sàkku sama njégal mat leen jégal ndax ay moykat ngeen waaye man ab jégalikat laa yéen sama jaam ñi mën leen jaar fenn ba lor ma mën leen jaar fenn ba jariñ ma man doonuma kuy loroo ka jariñu man kay maay jariñee ka lore waaye man kenn mënu maa jariñ kenn mënu lor da xam ne yéen ñëpp nag kaa jëkk sàkk ba ko ci mujj ak mboolem te jinne suñ maase ci gëm ragal ma ni yonante bi sallallahu alayhi wa alihi loola kat du dara ci sama nguur waaye itam safaan ba ka ma jëkk sàkk ci yéen ba kaa sàkk boole mu tëg jinne buñ maase woon ci di ma weddee kay mooy ni iblis mel rek bu ñëpp ne iblis ci weddeek mooy loola kat dara ci sama nguur gi yéen sama jaam ñi xam leen ne kaa njëkk a sàkk ba kaa mujj sàkk ci mboolem nit ak buñ maase woon taxaw ci benn bërëb ñoom ñëpp ñoom ñu bokk ñaanu ndooma kenn ku ne wax ma soxlaam kenn ku ne ñaan ma soxlaam te bokku soxla it ñoom ñëpp fi saasay saasa ma faj seeni soxla te kat loola du wàññi dara ci li ma amee xanaa daal day mel ne ci misaal nga waroon puso sëpp ko ci géej rek lu tolloog la nga xam ni moom la pusoba yi jël ci ndoxum géej ma yéen ñëpp su ma leen maase woon jox leen la ngeen bëgg it noonu dong lay toll ci la may wax te ci ne yéen sama jaam ñi li am solo daal mooy daa leen digal ngeen gëm tey jëf jëf ji yiw kenn ku ne daal jëfam laa koy fay kenn ku ne xam naa lam jëf bu dikkee danaa ko ko fay koo ci xam ni am nga lu baax na nga sant yàlla xam ne yàlla la ko taw fii xale koo xam ne nag fekk na fi lu bokkut ak aw fi safaan ba na yedd rek boppam te bu mu yedd keneen it nee na abu idris moom nga xam mu jële woon ci saaba bi mu jële woon dara su ma saa nettali addis bi day sukk ay bëti moom dafa màgg te yaatu te wax yi mu yéemu lool tax na abu idris mi nga xam ne moo jële woon ca saxaaba ba muy abu zarra su ma saay nekk addis bi day sukk ay bëtéwoma rawaahu muslim jël nañ ci alimaam ahmad ibn hanbal muy ko xamoon a xam addis mu ne waa saam daal amuñu benn addis bu gën a tedd bii baabul xafi li muy buntub soññe xalal isdiyaa bi ci ak dolli ku minal xayri ci aw yow fii alaaxirihum ci mujj dund ga boo toog sa mujj dund nga farlu ci lu baax te xam ne sa dund daanaka mu ngi bëgg a jeex di jéem itam la mujj sa dund gën la jiitu woon wala ñuy wax ci bunt bi qaala allahu taala awalam awalam no amirkum ndax dund mënu leen maa loo xam ne yedda zakkaru dana mën a waaru fii ci moom man koo xam ne tazakkara na naa waaru wa jaakum te dikkaloon leen ak nasiru aji xuppe ja wala ma nga ca suratu fatir xaala ibnu abbasin wala mu xaqiqoona ak way dëggal ña nee nañu maanaahu maanaam loolu mooy awalam nu xamirkum ndax dunda munu leen sitti na juróom benn fukki sanatan ci at wayu ayiduhu dana ko dëgëral alxadis hadis ba allazi da xam ne sa nadkuruhu xam seen nañ koo tudd insha allahu taala waxil waxis na ne maanaahu maanaam mooy samaani xashrata fukki juróom-ñett sanatan ci at waxila am nañu ne arbaxina sana xaalahu wax na ko alxasanu xasan wal kalbiyu wa masruqun ak masruq wa nuqila toxaleef na ko it an ibni xabaasin aydan wa naqalu toxal nañu ne an ahlal madinati naka waa madina kaanu nekkoon nañu ida balax bu jotee ahaduhum kenn ci ñoom arbaxina ñeent fukk sanatan ci at tafarraxa mu féex lil xibaadati jëm ci jaamu yàlla waxin moom al moo di ak kàllafe dane ña sàgganoon bu yedd te leen di wax naa leen xanaa may ma ne woon ngeen sax ci àdduna diir boo xam ne fàttali ko te waaru xaj na fa bala ngeen dikk di fekk musiba mi mel ne kon diir bu wax ne mayoon naa leen ko ci àdduna ngeen nekk ko fa mënu ngeen caa waaru te tuub te defu leen ko ñu wute ci ah, jur boobu nu muy toll Ibnu Abbas ak ñu bare bari ci ñuy gëstukat yi dañuy wax ne juróom benn fukki at la ku yàlla may nga jur juróom benn fukki at amatoo lay te mu ne danga gis ci addis yi bëgg a dikk addis bu dëgëral loolu am ñu ne déedéet ko génnat rek ku ko am ci at amatoo looy lay mën ngaa fàttaliku te waaru am ñu ne déedéet ñeent fukki at yi nag moom la alxasan ak alkalbi ak masruq wax ibnu xabaas tam am na nett lu bi nett li jële ci moom bu dëppoog ñeent fukki yi ba njëkkoon wax léegi nag moo ngi neen mooy juróom benn fukki at mu ne nee nañu waa Madina ku ci masaa dem ba fukki at da ngay di bàyyi lépp àdduna jëm ci jaamu yàlla ndax di fàggandiku ëllëg am ñu ne jur boobu daal mooy kàllafe rek kàllafe nag bu dee ci yoonu Maalik moom day tombeeg léegi waxoon samaani xasara sana ah, bu dee ci ñenn moom fukki at koy jàpp fukki at rek du àgg ci fukki juróom-ñett wa qawluhu taala wa jaakum te dikkal leen annadiru ak mbooloo mi huwa moom annabi yu ma yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee li waxees na ne ashebu mooy bi jaaw xaalahu wax na ko xikimatu wa bun xuyeynata wa xayruhuma wallahu alam léegi mu ne ma jaa akumu nasir amoon na aji xupp ñëwoon ci yéen xupp leen ngir waroon a waaru ibnu Abbas ak ñu bari ci mbooloo mi dañu wax ne yonent lañ bëgg a wax ne ñëwoon na ci yéen woo leen ci yàlla mënoon ngeen a waaru gëm ko topp ko am ñu ne an nasir bi jaaw ci jublu bijaaw boobu nag moom la ko Ikrima firee moog ibnu Uyayna ak ñeneen ak ñeneen wa amal ahadiisu ndaal hadiis ya fal awalu abi hurayrata radiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa sallam qaala ahdara dagg na aw lay allahu yàlla ilamri in ci as xataa balaxa ba mu jot sittiina juróom benn fukk sanatan ci at rawaahum buxaari yu xaala alxulamaawu maanaahu maanaam mooy lam yatruk bàyyiwut li xooñeel ko xodran aw lay mooy ngànt ib am ib am xalaxoo bam ko muñalee haadihil muddata bi la diir ñu xaal def na wax ne ax dara ar rajulu ida balaxa bu jotee alxaayata dayo ba fil xudri ci ngànt addis bi ci njëkk nee na ñu ngi ko jële ci abu hurayra mu jële ci yonente bi ko mu ne yonente bi nee woon nit day bu ko yàlla mayoo muy juróom benn fukki at yàlla mayatu ko law wu ñu lay bu ëllëgee ndax juróom benn fukki at moom yàgg na wares na cee mën a fàttaliku te waaru te tuub dellu ci sa boroom balaa dee fa dikk dara boobu neen daañu ko wax jublu ci dagg na aw lay fekkee ne wax na ko wax ba àgg ci kooku amatul lu mën a lay su boobaa ñu ne dagg na aw layam mu ne boroom xam-xam yi nee nañu lim ci addis bi mooy ku yàlla may nga dund diir boobu daal mayatu la mën a jaar ba laytu naa nangam ak nangam attaani ñaareel bi xan ibni abbasin radiallahu anhuma qaala kaana nekkoon na omaru omar radiallahu anhu yudxiluni duma dugal maha ashiyaaqi badrin ànd ak mag yi ñu fekke woon badar faka ànd na daanaka lenn ci ñoom wajada yëg na mer fi nafsihi ci boppam faqaala mu wax li ma ana lu tax li ma ngir lan yadxulu di tàbbi haza bi la xale maxana ànd ak nun wala naa te moom faqaala ti wax omaru innahu naka moom mii day man mooy ka nga xam ne xaysu xalimtum nekk na fa ngeen xam fa daa te mu woo ma daa te woo ma jëmu benn bés fa àdd xalamu te mu tàbbal ma maaxum ma ànd ñoom fa maa raaytu gisuma ne annahu naka moom daxaani woona ma yow ma isin ci bés boobee illaa lu yuriyahum nara ngir mu wan leen xaala ne leen maa taqooloona ana lu ngeen di wax fi qawlillahi taala ida jaa ndéem dikk na nasrullahi dimbalik yàlla wal fatxu ak ubbeem loolu mooy laay bu njëkk ci suratul fatx dafa def na sul ko gën a miine fa qaala ba'duhum umir naa digaleef nanu naxmadu nu sant allah yàlla wa nastaxfiruhu ten koy jéggalu ida nasarana ndéem dimbali nanu wa fataxa te mu ubbi xale naa ci nun wa sakata te noppi ba'duhum lenn ci ñoom falam yaqul te waxut shay'an dara fa qaala mu wax nit ñeel ma aka aka ndax naka noonee daqul nga wax yow it yabna xabbaasin yow ibnu xabbaas faqultu ma ne ko laa déedéet xaala mu ne ma fama taqulu ana kon loo wax qultu ma ne ko huwa moom ajamu rasulillahi moo di àppub yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam alamahu mëgal na ko laxoo ñeel ko xaala mu ida jaa bu dikkee nasrullahi ndimbalu yàlla wal fatxu ak ubbi ko wa dalika te loolee xalaamatu ajalika mooy mandargam sa àpp ne sa génn àdduna soreetut su boobaa fa sabbih na nga dollee sàbbaal bi am di rabbika ànd ak sant sa borom wastaghfiruhu te nga sàkku njëggalam innahu naka moom kaana nekk na tawwaaban di ab jëggalikat di ci mujj mooy mujjub suuratul nasr boobu le muy laayu ñetteel ja fa qaala omaru radiyallahu anhu maa alamu duma xam min haa ci saar woowu illaa ma taqulu ndara li nga wax rawaahu buxaari yu ibnu Abbas moo nettali wax ne Omar daan def Omar bu Xataab daan def bu woowee mag ñi fekkee woon Badar du diisoon ñoom waxaale ma man ibnu Abbas te man may ndaw rek ñenn ci mag ñoomee nag mais ne loolu dafa a naqari ñu mar ci daal di ne waaw lu tax bu ñu woo ci diisoo di waale gone gii te ñun am nan ay doom yu ne moom yem moom rek te du leen woo Omar na leen moom day li ko yàlla may ci xam ak ràññee moo tax rek ma di ko boole ji yéen su ma diisoo boole ko ci Ibn Abbas ne am bés nag Omar woo ma boole maa ñoom te jàpp naa ne booba dana la bëgg wan lu tax bu dul woowee rek ñu waxaale ma te doo waxaale saay moroom mu laaj leen ne leen waaw li yàlla wax yonente bi ne woon ida jaa wal fatuhu su yàlla dimbalee ubbil la ba ba yaatoo yaatoo noonu ay mbooloo mbooloo moo di duggandoo ci lislaam ki daan def ay kenn kenn soo gisee loolu na nga dollee sàbbaal sa boroom ak sant ko jéggalu ko mu mun laajo ne mun waaw loolu li ngeen ci wax yéen ñenn ca mag ñi fekk woon badal ne ah su bopp suñu boroom doo digal rek sant yàlla te jéggalu ko ndegam moo nu may ngañaay yaatal lislaam ñenn ñu wax loolu ñenn ña ne pat waxuñu dara ibnu Abbas ne Omar ne ma waaw ibnu Abbas yow bu ñëw ma wax ngay waxa ne ma ne ko déedéet man de duma wax loolu mu ne ma yow loo wax mu ne ko yàlla daa bëgg na xamal yonante bi ci saar woowu ne ko sab ab soreetut mooy léegi ma génnoon àdduna indi la fii ci man daldi ko ne soo gisee yàlla dimbali na ba lislaam yaatu ñuy def ay mbooloo moo dugg ci lislaam te daan def ay kenn kenn xamal ne kon loolu mooy màndargam wane ne sa ab soreetut nanga bari nag kon di sàbbaal yàlla di ko sant di ko jéggulu nanga bari li sàbbaal yàlla di ko sant te di ko jéggulu Ibnu Abbas ne bi ma waxee loolu Omar ne ma loolu nga jàpp day moom laa jàpp loolu nga xam de ci borom saawoo loolu laa ci xam al Buxaari moo nekk li loolu ak taalisu an Aïchata radiallahu anha qaalat maa salla julliwaatut rasulullahi yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam salaatan génn julli baxada an nazarat ci gannaaw ba wàccee àllahi ci moom ida jaa nasrullah wal fath illa yaqulu dara bu dana wax fiha ca moom ne subhanaka sorolal naa la lépp léerul ci yow rabbana yow sunu boroom wa bihamdika te maa ngi nekk ci sa cant allahumma yow buur bi ifir yàlla na nga jégal lii ñeel ma boobu muttafaxun alayhi la hadis bi buxaari muslim ñoom yëpp andi nañ ko dëppoo ca soxna Aïcha moo ko nekk li wax ne ba yàlla wàccee iza jaa nasrullahi wal fathu ca la yonent bi tàmbalee julli bu mu julleetu mu topp ndigal li daal di wax suñu borom ne ko subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma xfir lii suñu maa ngi tudd sax sell di sant tey ñaan nga jégal ma wa fi riwaayat nekk na beneen nettali fi saxiixayni an xaajana soxna Aïcha kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yokk di barin ay yàqoola mu fi rukkoo yi ci ab rukkoom rabbana wa bihamdik allahumma xfirli yata awalu dafa bëgg a taawun mooy ay limit namm yaa amalu daa bëgg a jëfe maa la nga xam ne umira digaleef na ko bisi ci moom fil quran fi qawlihi taala fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu boo dee xool ci saxiixu buxaari ak saxiixu muslim ba tey soxna Aysa moo ne moo fa nekk ne daana bari bu ma ko ak bu dee sujjóot di wax ñaan gii naa sunu borom maa ngi jublu sag sell di la sant tey sàkku nga jéggal ma mu ne nag booba daa jublu woon topp li ko yàlla dénk ci suuratul nasri ne ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu jooju moom la bëgg topp moo tax mu daa ñaan ñaan googu wa fi riwaayatin li muslimin kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa yëkk si di baril ay yaqoola muy wax qabla an yamuuta njëkk muy faatu subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka maa ngi sàkku san jéggal wa atuubu tuub léegi jëm ci yow xaalat xaaishatu xultu ma ne yaa rasulallahi ma haadihil kalimaatu yan mooy lu baat allët yi nga xam ne araaka maa ngi lay gis ahdastaha nga sos leen taquluhaa di leen wax xaala ne ma joilat defeef na lii ñeel ma alaamatun màndarga fii ummati ci sama xeet yi idaara ay tuhaa ndéem gis naa màndarga moomu xultuhaa ma wax ko te mooy isa jaa nasrullahi wal fatu ila axiri suurati ba ci mujjub saar wa am nett li boo xam ne muslim moo ko indi ne yonent bi day bi mu bëgg génn àdduna daana bari la wax ñaan googu suñu boroom maa ngi sag sell di sant tey sàkku nga jéggal ma te maa ngi lay tuubal bëgg nga nangu saak tuub muy soxna Aïcha ne yonent bi da ko daa bari wax ba mujj mu ne ko waaw baat yi nga xam ne léegi moom nga xewal di ko wax te bàyyi ko wax lu mu doon lu ko waral mu ko saa borom kat damaa xamal tegtal ma wan ne ma yaa ngi bëgg génn àdduna ne ma it boo gisee tegtal boobu del wax baat yooyu moo tax nag may wax baat yooyu mandarga nag mooy su ma gisee mu dimbali ma ba lislaam taxaw bu baax ay mbooloo di ñëwandoo di ci dugg te daan def ay kenn kenn ba saar wa daanoo loolee mu ci wax moom laay jëfe ndigal la wa fi riwaayatin la lu doon nett li boo xam ne muslim moo ko andi ba tey kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuksiru di barin min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayhi xaalat soxna Aysa ne qultu ma ne ko yaa rasulallahi araakat naa la gis tuksiru ngay barin min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayhi fa qaala mu ne ma axbarani xibaar na ma rabbi sama borom ni am ni naka man sa ara xalsat na maa gis alaamatan màndarga fii ummati sama xeet yi fa ivaar ay tuxaaleem gis naa ko ak sartu ma bariwul min xawli subhanallahi wa bihamdihi astaxfirullaha wa atubu ilayhi te fa xadar ay tuxa gis naa màndarga moomee muy soxna Aïcha ne yonent bi da ko daa bari wax ba mujj mu ne ko waaw baat yi nga xam ne léegi moom nga xewal di ko wax te dawul ko wax lu mu doon lu ko waral mu ne ko saa boroom kat damaa xamal tegtal bu ma wan ne ma yaa ngi bëgg a génn àdduna ne ma boo gisee tegtal boobu del wax baat yooyu moo tax nag may wax baat yooyu màndarga mi nag mooy su ma gisee mu dimbali ma ba lislaam taxaw bu baax ay mbooloo di ñëwandoo di ci dugg te daan def ay kenn kenn ba nasaar wa daanoo loolee mu ci wax moom laay jëfe ndigal la wa fi riwaayatin ma doon nett li boo xam muslim moo ko andi ba tey kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barin min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi qaalat soxna Aysa ne qultu ma ne ko yaa rasulallahi araakat naa la gis tukk siri ngay barin min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi fa qaala mu ne ma axbarani xibaar na ma rabbi sama boroom ni am ni naka man sa ara xalsat na maa gis xalaamatan màndarga fi ummati ci sama xeet yi fa izaar ay tuxaandeem gis naa ko ak sartu ma bari min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi te fa xadar ay tuxaa gis naa màndarga moomee te mooy isa jaa nasrullahi wal fathu ba nisaar wi daanoo daa andiwaat beneen nettali boo xam ne ba muslim da ko andi ca ab waaye nettali yëpp ñoo dëppoo mu ne yonante bi daa bari la wax subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi soxna Aysa ne ma ne ko lu tax ngay bari la wax baat yooyu mu ne ma saa kat dama xibaar ne ma am na màndarga moo xam ne naa dem ba gis ko ci saa yi te su ma ko gisee naa bari wax loolu loolu mooy nee ma soo gisee rek mu dimbali na ba lislaam taxaw bu baax mu ubbu màkka nit ñi di ñëw di duggandoo def mbooloo te daan def ay kenn kenn sayo boo bari la sàbbaal sa boroom bari na koo sant bari na sàkku njëggalam te xam ne sab àpp jege si na léegi nga génn àdduna xan anasin radiyallahu anhu qaala inna allah naka yàlla xazza tedd na wa jàlla te mu màgg taabaxa toftale na al waxya waxyu ga xalaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla wafaatihi njëkk faatoom ga xataa tawfiya ba faateef ko ak saramaakaana ca moom gënoon bari di ko nekk al waxyu waxyu ba muttafaqun alayhi hadis bi ba tey buxaari muslim te senañ ca anas moo nekk li hadis bi ne suñ borom day dafa doon wàccee ndànk-ndànk waxyu bi ca nam ko soobe waaye nag boronte bi demee ba nga xam ne doogoo génn àdduna moom dafa moom dafa soufflé ni wahyu gi wàccee gën a bari lool lool ba bari bari waaye boo xam ne mës naa baree ci njëkk loola alxaamisu xan jaabirin radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def na dekkal kun xabdin bépp jaam xalaamaa ci la nga xam ne maata faatoona alayhi ci moom rawaax muslim muslim moo net li addis boobu nga ko jële ci bi nag mooy jaabir moo wax ne yonent bi nee na bu nekk lay la mu dee ci la ko yàllay dekkale mel ne kon jaam bu nekk war nay farlu ci fu mu di tuub te dellu ci boroomam ndax rek bu yàlla jël ak fekk xolam ak yéeneem ak ay jëfam lépp sell nga xam ne ca cell googee lay faatoo te ca lañu koy dekkal addisiyon yëpp day wane ne ku dem bay mag rek war ngaa farlu ci bari na tuub bari na jéggulu ndax lees ci dund lépp sell te nga am mujj gu rafet baabun li ab bunt la fii bayaani kasrati turuqil xayri ci leeral barit yoonu yiw yi qaala allahu taala wa ma tafhamu lu ngeen def min xayrin ci aw fa inna allah naka yàlla alimun xam la bihi ci moom wa qaala taala wa ma tafhamu lu ngeen def min xayrin ci aw ñëw yaalamhu kon xam ko allahu yàlla wa qaala taala fa man yaamal ku jëf misqaala zarratin lu ne aw sang lañ xayran ci aw yiw mu gis wa qaala taala man xamila ku jëf saalihan jëf ju baax fa nafsihi ñal na boppam wal ayaatu laaya fil baabi ci bunt bi kasiratun aji bari lañu mu ne lu aji ci yu baax yu bari nga xam ne nit ki mën na ci góorgóorlu ndax mu bari ay tuyaaba suñu boroom wax na ci alquran di ci soññaate di wax naa lu ngeen def ci aw yiw rek yàlla xam na ko te danga leen ko fay kon nag bari leen dafa yiw loolu ma nga ca saaru baqara laay ba tolloog ñaari téeméer ak fukk ak juróom ba tey waxaat na ne lu ngeen def ci lu baax rek yàlla xam na ko te dina leen fay loolu it ma nga ca saaru baqara laay ba tolloog téeméer ak juróom ñaar bu jëkk ba dafa doonoon wa ma tafhamu min xayrin fa inna allaha ba tey suñu borom ne ku jëf bu baax doonte daa toll ne ab sàng la danga gis pay ga man ma nga ca suuratu silzaani faman yaamal misqaala zarratin xayran yara ba tey waxaat na ne ci feneen ku jëf lu baax boppam loolu ma nga ca suuratul jaasiya laaya ba tolloog fukk ak juróom damay bam ne man amila saalihan fali nafsi laay mel noonu nag te ay ci bunt bii yu bare bari lañ te cee doy na yooyu